salaamaaleykum mbokki déglukat yi mu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub bi mu tëral nuy dellu di sant yàlla ci li nu leen mën a dégtal seen émission bi ngeen sopp di yoonu njub xarit yi ci sunu njàng mi weesu mu ngi tollu woon ci ñaareelu ndigal li gisoon nanu ci li yàlla wax ne bul sàkkal sa bopp ay xërëm te gisoon nanu ne xërëm yamul rekk ci nataal yi ñuy yatt ak xàmb yi ñuy def ci yenn bërëb yi di fa tuur ji wante xërëm dem na ba ci lépp loo xam ne dafay dox sa digganteeg yàlla mën na nekk ay yëf walla nit ñu leen di sujootal ak a jaamu ngir yaakaar ca ñoom ndimbal ak wàll waaye gisoon nanu ne noonu la xërëm di soreele nit yàlla ba tax xërëm nekk lees wara moytu ndaxte xërëm yoo gis ay raba nga ca gannaaw te rab yoo yooyee seytaane lañu liggéeyal te seytaane moomu toroxal nit rekk a ko tax a jóg du leneen moo tax yàlla dinu artu ci xërëm ñi dëgër bopp nag yàlla wax na ne dina leen du moyu léegi nag yàllaa ngi naan ci ñetteelu ndigal li bul tudd turu aji sax ji di yàlla seen boroom ci neen ndaxte aji sax ji du seetaan mukk kiy sofental turam kon loolu lanu fas yéene gëstoondoo ba gis li yàlla bëgg nu jàng ko ci xanaa boo déggee walla nga jàng ndigal lii dinga laaj sa bopp naka lanu mën a sofantale turu yàlla mbokk yi laaj bu am solo ngi noonu ku am seetlu dinga gis ne ni nit ñiy sofantale turu yàlla mooy dañu yendoo ñàkkal fayda aw turam ndaxte dangay dégg ñuy jëfandikoo turu yàlla ci mbir yu àndul ak benn fulla su leen njàqare dabe walla mbir bett leen nga dégg ñuy tudd tur yàlla ñenn ñi duñu ci sax xalaat waaye ñu bare tayef la ci ñoom moo tax bés bu nekk nga gis ku digaaleeg moroomam naan ko bu soobee yàlla dinaa def nangam fekk li muy wax fasu ko yéene def sax turu yàlla wu muy jëfandikoo ay fen kepp la ci bëgg a gëmloo ka waxal tuur ko lëndëm ba dem rekk la bëgg ñenn ñi ñoom dangeen di séq mbir ñu naan la waat naa ko ci yàlla lii ak lee fekk waxul dëgg waaye dalay fexe gëmloo safaanu dëgg gi waaw ndax ñooñu dañu nekkul di sofantal turu yàlla bu ñuy def yooyu aha kay ñu ngiy sofantal tur yàlla noo nii lañu bare di yendoo mu nekk mbir mu lawte siiw ba tax ñu bare bàyyeetuñu xel ci ne yàlla bëgg ko bu ñu koy def duñu sax faale yàlla kon jaadu na nu xam itam ne yàlla du seetaan mukk kuy sofental turam boo nekkee nitu dëgg du jar ngay waat ak a giiñ ngir ñu gëm la waaye loolu des na ci dellusiwaat ci yeneen émission nanu jàppagum rek ne almasi bi yéesu nee na buleen leen dara bu mu doon ci asamaan bu mu doon ci àddina bu mu doon it ci benn bërëb bul giñ it ci sa bopp ndaxte mënuloo weexal mbaa ñuulal benn ci say kawar sa waaw na nekk waaw sa déedéet na nekk déedéet loo ci teg ci iblis la jóge te it mbind mi rax ci dooli ne nangeen yem ci waaw ak déet ngir bañ cee layoo fa kanam yàlla na seen dund gépp sell ni yàlla selle naka la yàlla selle mbokki déglukat yi sellaayu yàlla deesu ko laam laameeti yàlla dafa sell ba nga xam ne du nekk sax fu sellul kenn ku sellul it du ko mën a jege fenn am na ci mbind mi ay misaal yu baree bare yu mën a wone selaayu yàlla waaye danu leen ci tànnal benn rekk muy bés ba yàlla aji sax ji feeñoo yonent yàlla muusa ci tàkku tàkku safara ci ngarab ca kaw tundu sinaay keroog muusa dafa jàdd ne day seet loolu lu mu noonu yàlla woo ko ne ko muusa muusa bul jege si su summil say dàll ndaxte bërëb bii nga taxaw suuf su sell la ci lu wér bereb boobu dafa selloon ndax teewaayu yàlla ca béréb ba kon kàddu gi yàlla wax muusa ne ko bul jege si sumil say dàll ndaxte béréb bu sell nga taxaw mën nanu ci gis ne ci dëgg amul werante yàlla ku sell la waaye itam yàlla dafa bëgg ñépp ràññee sellaayam mel na malaaka yi ci jataayam ñoom ñépp ràññee nañu sellaayam ba tax na guddeeg bëccëg duñu noppee wax naan borom bi yàlla aji kàttan ji moo sell sell sell waaye nit ñi ñoom ñi yàlla gën a fonk ci càkkeef gi ndax ràññee nañu sellaayu yàlla déedéet li ëpp ci nit ñi faalewuñu sax ki yàlla doon te ñàkk ràññee sellaayu yàlla moo tax ñuy sofental turam di ko tudd ci waxi caaxaan yu nekk ñàkk ràññee sellaayu turu yàlla lu garaw la lool sax wante am na lu ko gën a garaaw li ko gën a garaaw mooy lànk bañ a ràññee lan mooy turam bi yàlla waxee ak muusa ca garab sa doon tàkk te lakkul ca kaw tund sinaay dafa ko doon tegtal turam ngir waa àddina sépp mën koo xam déglu leen bu baax li mbind mi wax mu ne noonu yàlla ne muusa maay sa yàllay baay di yàllay ibrahima yàllay isaaxa ak yàlla yanqoba musaa nag nëbb xar kanamam ndax ragala xool yàlla te aji sax ji ne ko ci lu bir gis naa fitna ji sama mbooloo di daj misira dégg naa it seen yuuxu ndax jaraaf yi leen jañ ci liggéey te ñeewente naa leen ndax seeni coono dama wàcc nag ngir rëccal leen ci loxoy waa misra jële leen ci réew ma yóbbuleen ci meneen réew mu naat te yaatu noonu yàlla wax na muusa ne dina ko yónni ca firawna buuru misra ngir mu goreel bànni israel ci seenug njaam waaye muusa ne yàlla su ma demee ci bànni israel ne leen seen yàllay maam moo ma yónni ci yéen dinañu ma laaj nu mu tudd kon lu ma leen di tontu yàlla ne muusa maay ki nekk nanga waxe nii ak bànni israel aji nekk ji moo ma yónni ci yéen yàlla dellu ne ko aji sax ji di yàllay maam yi yàllay ibrahima yàllay isaaxa ak yàllay yanqoba moo ma yónni ci yéen loolu mooy sama tur ba faaw ndax dégg ngeen li yàlla wax ci lu jëm ci turam lan mooy turu yàlla xëy na dinga ma ne turu yàlla moo yàlla rek wante yàlla du turam de yàlla mooy ki mu doon yàlla mooy yàlla waaye turam du yàlla ci misaal man nit laa wante sama tur du nit dama am sama tur ak sama sant yàlla moom itam am na tur ci mbind mi am na ay téeméeri tur sax wante turam wi ci gën a siiw mooy aji sax ji kan mooy yàlla nag mooy aji sax ji mooy boroom laaxira mooy kiy dund ba faw mooy kiy sax abadan ni mu mel tey la meloon démb ni mu mel démb ak tey lay mel ba faaw te ni nu ko jànge it yàlla waxoon na Musa man maay sa yàllay baay di yàllay Ibrahima yàllay Isaaxa ak yàllay Yanqooba dama wàcc nag ngir rëccal bànni Israyil ci loxo loxoy waa Misra mbokk yi am nañu fii lu neex lool ci lu wóor yàlla aji sax ji dafa kawe màgg te sell wante ba tey mooy it ki mën a wàcce boppam ngir wàllu si nit ki mu sàkkoon ci lu wóor turam dafa màgg sell te baax looloo tax ci ñetteelu ndigal li yàlla waxoon na bànni Israël ne bul tudd turu aji sax ji di yàlla seen boroom ci neen ndaxte aji sax ji du seetaan mukk kiy sofental turam tey ji amunu jotu leeral lépp li kàddu yàlla jàngale ci ñetteelu ndigal li wante su fekkee ne danga bëgg a moytu ba bañ a sofental turu yàlla am na lu nu war a ràññee mooy lii almasi bi yéesu ganesi na àddina ngir xamle turu yàlla yéesu ñëw na ngir nit ñi mën a xam turu yàlla ak ki ñu doon ni nu ko gise woon yéesu mooy kalimaatu laa di kàddu gi nekkoon ak yàlla ca njaal benn ga moom la linjil bu sell bi wax bi mu naan ca njaalbeen ga fekk na kàddu gi am te kàddu gi ma nga woon ak yàlla te kàddu gi yàlla la woon moo di ki nekkoon ak yàlla ca njaalbeen ga ci moom la yàlla jaar sàkk lépp amul dara lu ñu sàkk te jaarul ci moom ci moom la dund gi nekk te dund googu mooy leeral nit ñi kàddu gi ñëw na doon nit dëkk ci sunu biir gis nanu ndamam mu fees ak yiw ak dëgg ndam li baay bi jox jenn doomam ji mu am kepp ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaarale ko ci moom te àddina xamu ko ñëw na ci réewam te ay ñoñam nanguwuñu ko teewul ñi ko nangu te gëm ci turam may na leen ñu am sañ-sañu nekk doomi yàlla ndigali yàlla yi ci gémmiñu muusa lañu leen jaarale yiw wi ak dëgg gi yéesu kirist moo ko indaale kenn mënula gis yàlla waaye bàjjo bi di yàlla te nekk ak baay bi moo ko xamle kon mbind mi dafa nuy won ne kàddu gi di baatu aji sax ji doon wax ak muusa jaare ko ci tàkku-tàkku safara ci ngarab mooy ki gane si àddina sanc ci yaramu nit mu ngi tudd yeesu jaare ko ci juddoom ci jikkoom ay waxam ak jëfam almasi bi yeesu wone woon na ne mooy kàddug aji sax ji wàcce asamaan yor bindu nit yeesu nee na ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax laata ñuy sàkk ibrahima fekk na ma doon ki ñuy wax may ki nekk coobarek yàlla mooy ñépp di teral doom ji ni ñuy terale yàlla baay bi ku teralul doom ji teraloo baay bi ko yónni man ak baay bi benn lanu ku ma gis gis nga yàlla baay bi xamuleen ne maa ngi nekk ci baay bi te baay baa ngi ci man kàddu yi ma leen wax jógewuñu ci man waaye baay bi nekk ci man mooy matal ay jëfam gëm leen li ma leen wax ne maa ngi ci baay bi te baay baa ngi ci man wala bokk gëm leen ndax jëf yi kon noonu la almasi bi yéesu xamale woon nit ñi ne mooy doomu aji sax ji bawoo asamaan waaye lu ëpp ci nit ñi gëmuñu ko yeesu defoon na ay jëf yu kenn deful dara tëwu ko mënoon na noot bépp doole ci kaw suuf ngelaw li ak géej gi rab yi feebar ak dee defoon na kéemaan yooyu ngir nit ñépp mën a xam fu mu jóge ak ki mu doon wante lu ëpp ci mbooloo ma ràññeewuñu woon ki mu doon dañu ko daan teg ab yonent waaye ràññeewuñu woon ne matuk yàlla gépp ngi dëkk ci moom xamuñu woon ne yéesu kirist mooy kàddug yàlla aji sax ji bawoo asamaan dañu doon sofental turam wante mbind mi nee na su ñépp nekkoon ay naafeq du tere yàlla nekk dëgg njaalbeen nga fekk na kirist yéesu yor melaw yàlla waaye aakimoowul taxawaayam ci li mu méngoo ak yàlla waaye daa wàcce boppam ba tolloog nit ñi def boppam surga te bi mu yoree bindu nit daa suufeel boppam di dégg ndigal ba joxe boppam ñu daaj ko sax ci bant moo tax yàlla kawel ko lool jox ko tur wi tiim yépp ngir turu yeesoo tax ñépp sukk ci asamaan ci kaw suuf ci biir suuf te ñépp bokk genn kàddu naan Yeesu Kirist mooy borom bi ci màggug yàlla baay bi ndax dégg ngeen li kàddug yàlla wax ci mbirum tur wi tiim tur yépp nanu ko jàngaat mu ne yàlla kawel na ko lool jox ko tur wi tiim yépp ngir turu yéesoo tax ñépp sukk ci asamaan ci kaw suuf ci biir suuf te ñépp bokk genn kàddu naan yeesu kirist mooy borom bi ci màggoog yàlla baay bi te mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce yow miy déglu tey ndax ràññee nga turu yàlla ndax fonk nga ko wala boog danga bokk ci ñiy sofental turam ngir nga mën a barkeelu ëllëg dañu lay ñaan nga xalaat bu baax ci ñetteelu ndigal li yàlla wax ne bul tudd turu aji sax ji di yàlla seen boroom ci neen ndaxte aji sax ji du seetaan mukk ki sofental turam kon jërëjëf ci déglu bi ndegam neex na yàlla njàng mi ñëw dina nu tàbbi ci ñeenteelu ndigal yi su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li mbind mi wax ne bul tudd turu aji sax ji di yàlla seen borom ci ndax te aji sax ji du seetaan mukk kiy sofental turam